salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama mbokk internet sans limite TV mbégte joie actualité people euh, comme ni ma leen ko waxee nee naa leen sans limite fësal ak wane dëggal tubaat fakkaala boo ko bëggee fii ngay ñëw euh, ci seen concept émission bi nga xamante ne euh, mooy people deux fois dans la semaine ma ci ànd ak sama frère sama xarit Jimbori di ko bàyyi mu nuyu am internet sans limite yi. waaw Fatou maa ngi lay nuyu bu baax. di nuyu téléspectateur sans limite yëpp. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan mm-hmm. di leen wax ni képp ku ñu seetaan yàlla na la yàlla defal jàmm mm-hmm. barki yonent bi soxla boo am yàlla na la ko yàlla fajal mm-hmm. may nuyu sama grand Abdou Aziz Silla bu baax euh, di nuyu bu baax sama mag aw mbuub Kamara Mbay suma xarit boobu nekk groupe Faramaren Soudan ma koy nuyu bu baax euh, soxna may jaxate xam nga may jàmme ma koy nuyu bu baax moom tamit sama jigéen la suma doom la suma lépp la mm-hmm. nekk nit ku baax moom tamit waaw di nuyu Ami njaay bu groupe topp ka mm-hmm. xam nga bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu képp ku nga xam ni yaa ngi may bégee di nuyu Daaru Moxti business mm-hmm. moo ma jox weer yi waaw nga xam ni chaque émission mu mm-hmm. jox ma verre yu bees. Mm-hmm. newoon na la nga foto sa kanam jox ko mu jox lay verre xay na da ngaa bëgg li verre. damay mais bu ku bëgg verre mm-hmm. original. daaru moxti ngay dem. waaw may beral nuyoo sama yaay mère Péro Fall. ak sama ñaari rakk yooyu Njéeme sàmb ak Awa Samb di leen ñaanal wér gi yaram ak gudd fan ak wér gi yaram. sama yaay Péro yal na ko fi yàlla yàggal. ci barke yonent yàlla Muhammad parce que na ni yaay la. waaw mooy suñu yaay. macha allah ni mooy suñu yaay. Mm-hmm. mère mooy suñu yaay. <laughs> <laughs> waaw di ñaanal waali fekk tamit yàlla na ko mm-hmm. yàlla defal. Mm-hmm. gudd fan ak wér gi yaram quoi. musal ko ci cat ak làmmañ ak lépp lu ko mun a yàqal. barki Seyduna Muhammad. jaaga aussi yàlla na dee di nooflaayam. suma xarit la woon. bu baax. waaw yàlla na dee di nooflaayam mook coon sekk Mm-hmm. maa ngi leen ñaaneel bu baax quoi jaaga moom mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm daal. duma ko fàtte ba mukk mm-hmm. sama waay la. sa xarit la waaw bu ah. baax. Uh-huh. Jimbori ginnaaw bi nga nuyoo waa àddina nuyu waa Sénégal nuyu suñu mbokk internetu sans limite TV yi euh, dañuy jëm ci li nga xamante ni mooy actualité euh, ci semaine bi actualité li gën a fës euh, muy mariage bi nga xamante ni jib na nee naa la heureux ménage jubati na nag macha allah. Mm-hmm. heureux ménage dafa mel dafa demee côté rek daa weng rek Jimbori. Mm-hmm. loolu jaaxalu la <laughs> heureux ménage weng na de. ah oui. gisoon gisoo ni heureux ménage daa weng daa demee côté. waaw non mais xam nga wërsëgu àdduna bul la ah man na waar lii. wërsëgu àddina. Mm-hmm. bul ku sa numéro génn nga jot ci. Mm-hmm. c'est que àddina boo ci nekkee yow fexeel ba bul yàkkamti rek. Mm-hmm. gis nga bu doomu aadama boo yàkkamtee mun ngaa jël lu dul sa wërsëg. Mm-hmm. xam nga dañ naan nit du lekk lu dul wërsëgam. mais mun nga jël lu dul sa wërsëg. parce que bu yàlla ne jabar tànn ko. ne la tànnal jëkkër. parce que dafa ne tànnalal sa doom yi yaay bu baax. Mhm. yow tamit mu ne la tànnalal sa doom yi baax bu baax. Mhm. c'est baay bu baax nekkul ci ku am alal. Mhm. yaay ju baax nekkul ci ku rafet. déedéet. parce que rafet taaru jigéen. est-ce que xam nga lan la. lan la taaru jigéen mooy rafet jikko. jigéen lu mu taaru taaru bu rafetul jikko du la sax dara. kon taaru jigéen mooy rafet jikko. parce que da chaque jour jigéen ñu fase ko. nga gis taar ba ca moom nga naan kii lañ passé. kii lan la def bañ passé ko. xoola loolu nga gis ku ñaaw. toog ci sëyam jëkkëram gënal ko lu nekk. parce que gis nga tey euh, gàllaaju sëy xam nga lan la. xam nga luy gàllaaju sëy est gàllaaju sëy mooy boo nekkee sa jëkkër. lépp loo ko war a defal bul xaar mu wax la ko. boo ko waree jox añ. jox ko ko boo ko waree jox attaay jox ko ko boo ko waree jox ndox jox ko ko boo ko waree fóotal fóotal ko loolu mooy góor góor loolu la soxla loolu mooy lii accompagner sëy mais jabar joo xam ne yaa naan ko doo ma jox añ yow mu ne la xaaral ma tàngal ko waaye ji nag mu ne la boo defaguma ko di nga ne ko waaye doo indi ndox mu ne la xaaral doo indi mais xam nga loolu bu yàggee yow da ngay tàyyi mhm. jigéen ñi ñoo war a xam lan mooy ak jigéen ñu dem jigéene góor ñi tamit nañ xam lan mooy góor nga góore loolu mooy affaire bi quoi góor yërmande la rek góor yërmande la mais am na loo xam ne bu ko jigéen di def lu góor bëri bëri yërmande day dàq yërmande góor mais am na loo xam ne bu koy jigéen di def góor mën a lu ko dara mais daal bu kenn yàkkamti ku nekk na nga tegu fi nga war a tegu te xaar ki nga war a xaar parce que gis nga loo yàkkamti yàkkamti ki la war a yóbbu bis bu ñëwee. Mhm. boo yàkkamti woon ba def loo ci war ta def. riccu la lay jural. dëgg la te yàkkamteeg gaawtu bu ñu juree doom doom ji. noonu la war a olof Ndiaye da koy wax danaan yàqul yàkkamti yàqul. gaawti non yàkkamteeg gaawtu bu ñu juree doom doom ji nan lay tudd. day nekk kii réccu lañ koy réccu lay doon. Mhm. réccu lañ koy tuddee. Mhm, mhm. yaakamteeg gaawtu seen doom réccu la tuddee. réccu lañ koy tuddee waaw wax dëgg yàlla. ci actualité bi la ñuy des gis nañu ki nga xamante mooy Baye Ndiaye. waaw euh, Baye Ndiaye euh, ménage yu. ci nga xamante waa sa patron. ci ki nga xamante ne euh, mooy Betty. mariage deuxième femme. waaw non mais loolu dara. c'est xam nga lan mooy problème bi. Sénégal dañuy coow nii. mais. coow li ak li ñuy coow est-ce que Fatou Mbaye benn la xam nga léeg-léeg coow li coow li ak li ñuy coow du nekk benn jaaxalu la lé ah mhm. ma ne léeg-léeg mhm. dañuy coow di coow rek mhm. te coow li ak li ñuy coow du nekkul benn ak kan lañu ñu war a coow ndax jar naa coowoo aussi balaa ñuy coow parce que léeg-léeg nga nekk ci coow loo xam ne. Mm-hmm. kooku ay waxam sax du coow quoi jarul coow. Mm-hmm. léegi euh, dañ ne Baye Ndiaye dafa takk ñaareel. Mm-hmm. ñu ne Aziz Ndiaye tamit taayale ba mu takkee ñaareel ñu nekkaat ci di coow. mais lu tax ma laaj la ñaari baat yooyu. kan mooy Baye Ndiaye kan mooy Aziz Ndiaye ba pare. gisal Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye. ay nitu daara lañ daara. ay nitu daara lañ. ba Aziz li nga koy gis nii mu ji mu jiite alburaax. Mm-hmm. boo ko daggalee daara mu jàngale. Mm-hmm. alxuraan la mën alxuraan la jàng. Mm-hmm. Baye Ndiaye euh, sëñ Aadi Touré Aadi Touré moo ko jàngal. Aadi Touré benn yaa ngi koy dégg. fa la jàngee kaalibe la. léegi nitu daara moom dafa war a takk wala warul takk. war na takk. war na takk parce que chaque jour. arxuraan la man gis nga loo yaakaar ci arxuraan baay mën na ko. macha allah. gisoo nu araab yi di jàngee sax baay da koy jàngee. Mm-hmm. Aziz day jàngee noonu. Mm-hmm. parce que seen papa nitu daara la daara la leen xamal. Mm-hmm. mais liggéey nag liggéey la. mais léegi bu takkee bu fekkante ne dafa am aawo. ñëw takk ñaareel. léegi lan moo ci nekk. ah parce que polémique am na ci. Mhm. Ah, ndax euh, Baye Ndiaye dafa defoon benn vidéo toog ki nga xamante ne mooy aawam. Mhm. ne ko du ma takk. Mhm. takkuma kenn. waaw waaw yow rek laa yem pour ko waa ci yow rek laa yem. waa léegi xam nga jigéen est-ce que xam nga jigéen code la code. Hmm. code lan waaw. Hmm. xam nga jigéen mun na laa defal loo xam ne yow ba ba décoder sa code nga wax loo war ta wax. Hmm. waaw. mais jigéen jigéen tamit mun naa jógewaat foofu ko décodewaat code boobu dindi ko. Mm-hmm. oui. loolu muy lan. léegi xam nga tey li mu defal baay ba baay wax ko loolu. Mm-hmm. moom la kee defal baay ba baay takku ko. Mm-hmm. waxal. sëgam jigéen la yàlla wax ne ko même boo newee ci néegu sëy ñu fase la. mu ne bala ngaa jël bagage yi nanga jaabante ñetti yoon doog a ñibbi. tax. kon yàlla may na jigéen mu sarme mhm. li nga sarme sa jëkkër ba mu ne la yow duma la mës a wutal wujj moom la ko keneen for sarme ba mu ñëw takk mhm. lim ko wax ba tay dëgg la de mhm. duma la takkal kenn ba tey takkalu ko kenn takkalu kenn lan la ko def kon ah lan la def da ko wutal wujj <laughs> parce que vidéo bi dañ ne dafa ne ko du ma la takkal kenn mm. du du ko takkal kenn ndax nit di nga ko dem di ko takk di ko jox nit ki <laughs> takkalu ko takkalu ko de da ko wutal eh, wujj <laughs> dane ko du ma la takkal wujj waa mais du ma la takkal wujj waaw wax na ko du ko ko takkal <laughs> wax na ko ko du ma la takkal mm-hmm. loolu la ko wax c'est que dafa am góor ñoo xamante ne waaw euh, dañuy euh, ñoom Euh, fu ñu toog tey boo leen laajtee ni leen est que pare ngeen pour am deuxième femme dañuy taxaw ne la ñun pare wuñ pour am deuxième femme. waaw te or ko ñoom ñu ngi ci yoon boobu sax. waaw mais xam nga jigéen ñi léegi. Hmm. koo ci nekkal ne ko danga koy takkal deuxième femme te yore benn jabar. Hmm. sa kër dootul neex. lu tax dañ lay pine. Hmm. moo tax góor goo wax mu ne la ñaareel noono fekk mu nga ca. ma nga ca yoon ba sax. ma nga ca yoon wa. parce que jigéen ñi ñoo lay wan carrément boo gis nga tey jigéen ñi bu ñu la doon toggal nga tudd ñaareel jàppal ni bis boobu dootoo añ wala booy añ sa añ du neex. <laughs> dëgg la bu dee attaayal duñ ko yeggale. Mhm. dañ naa la demal ca kooka mu defal la ko. Mhm. léegi sa sa kër naqari yow ko da ngay politique ba indi keneen. Mhm. politique bi jigéen ñi ñoo ko indi. mais problème bi mooy euh, dafa am soxna am jabar am ko xam ne dalay jàppale sa liggéey. est-ce xam nga loolu. ñett yi lu seen différence. am na jabar boo xam ne soxna la. Mhm. am na ko xam ne jabar la. Mhm. am na ko xam ne dalay jàppale sa liggéey. Mhm. waxuma ne ñi ñii nag benn lañ si mais léeg nit day toll ci ci liggéey ci day toll fu xam ni ci liggéey. day léeg mu takk jigéen pour mu jàppale ko. ci liggéey. soxna nag xam nga mooy ku xam ni kooku moo lay aar. te souvent léeg boo indee ay soxna. boo indee ay jabar boo indee ay jigéen. pour soxna nekk ca dafa jafe. lu tax xam nga soxna si olof mooy sox soxna soxna soxlay sox. boo xam ne ku la nar a laal mu sox ko ci kawam loolu mooy soxna. loolu mooy baatu soxna. day moom day sox sox bi rek di xool kan moo lay laal. Mm-hmm. loolu mooy soxna. jabar nag mooy ko xam ne day ñëw nekk sa lépp dana dana nekk sa lépp mais chaque jour day tàngal sa kooku mooy jabar ki lay jàppale sa liggéeyukaay nag mooy ki nga xam ni da ngay liggéey ba xam nga tey est-ce que xam nga Fatou mbay le àdduna dafa toll fu xam ni soxlaatuñ jigéen bu rafet est-ce que xam nga loolu lu tax doo gis jigéen ñu rafet ñu bëri di taxawaalu kenn takku leen mhm. bu njëkk ba paa yi fi nekkoon jigéen bu am form rafet taaru njool ci kaw xees yooyu lañ daan wut léegi soxlaatuñu jigéen bu rafet boroom xel mu rëy la nit ñi di wër fu mu doon ni góor bu amul jigéen bu la mën a jàppale da sànni nga say mbir léegi su fekkante ne baay dafa indi benn jabar teg bi mu indee jabar jabar ji jigéen diwu ko de jigéediwu ko moom wax dëgg yàlla jigéediwu ko parce que bu ko jigéedi woon du tal benn bi bay indi ñaar beneen léegi nag segam benn bi jigéediwu ko mhm. ñaareel bi moom fu mu ni ñaareel bi moo gën a nekk ci danger aaw bi mhm. lu tax xam nga tey kee ñëw na ba jikko ba mu mën a jënd ay otoog liggéeyam yokk mhm. ba mu mën la cee indi léegi bu la indee ba pare lan moo ciy teguwaat est-ce que xam na ko non non léegi kon moo tax ñeneen ñuy nekk ci internet bi naan diw yéene nañ ko lii ak lii am war naa am ak nangam nangam ak di ci wax ay affaire ñoom xamuñu képp ku jàppale kii doog a ñëw ah yow yaa ngi ci danger ki njëkk a ñëw moo gën a placé ki mujjee ñëw parce que tey ki njëkk a ñëw moom indi na wërsëg bu bëri indi na lu mu war a indi mhm. kii ñëwaat ndax dina indi lu lu lu tol ni li aaw bi indi mhm. ba tey aaw bi moo am jëkkër ji ñaareel bi amagul dara. Hmm? amagul dara. lu tax. non xam nga tey soxla bu dee ñaar jàmmay jiitu ba pare. Hmm. Fatou Mbaye bëri na ñu takk jabar ba pare xoola est-ce que xam nga jaba séet dafa am séetatët am. séetatët séetatët. lu lu nekkee noonu. xoola séet mooy nga indi ko mun a teg séetatët mooy mu ñëw. rek nit ñu commencé laa kalaamee ak moom nga naan seet tët mu naan xam nga lan la kii nuyoo léegi kal la mu naan ko sama sœur la nangam nang mu naan kii neexuma ni ma xoolee kee ñoo naan naan ko sa jabar daa mënul ñëw nuyu ma rek nga naan seet tët tët seet mm-hmm. tët tët kooku mooy seet mm-hmm. am na ñu xam ni seet seet lañ am na ñu xam ne ay seet tët tët du ñu toogagum sax nga am problème Mm-hmm. parce que commencé fii wala faa wala fële. Mm-hmm. mais dama ni képp ba saa bu ñu indee aawo aawa toog jig jëkkëram ba ñaareel ñëw ñaareel mooy nekk ci danger ba keroog troisième di ñëw. Mm-hmm. parce lu am dañ naan moom la. waaw actuellement nii lu am dañ naan biti la. biti bu yaboo mu jéem a nekk biir bañ a nekk biti parce que kee mu ngi ci biir bu biti ñëwee dafa fekk ci biir. kee bu nekkul woon biir biti du am mm-hmm. du dëgg mm-hmm. kon yàlla na leen yàlla defal jàmm daal mu mm-hmm. jikkoo c'est sëy bi amul problème mais ñi génnaat si internet bi di polémique sëy bi loolu mooy affaire bi wax dëgg yàlla lii mooy affaire bi waaw aawa daal bu fekkante ne mun naa toog ba ñaareel mën a ñëw fekk si ko ba ba mu jig jëkkër ji ba jëkkër ji tala dundal aawo ba mhm. talat talat talat jël ñaareel mhm. képp ku tal jël ñaareel yaa ngi ci jàmm dëgg la mais boo jëlee ñaareel ba pare mhm. na nga fexe ba ñaareel nga am ci jàmm lii kese la amul leneen oui ku nekk am nga droit ah. takk cinq ba six ba sept ba huit non quatre jabar rek nga am droit am waaw wax dëgg yàlla mais nag bu fekkee am na ñu bëri dañ naan l'islam moo ma ko sant Mm-hmm. mais lislaam bu la ko santee ba pare mm-hmm. am na lu la l'islam di sant lu xam ne mm-hmm. soo ko conti soo ko am na lu xam ne boo ko continuer te tegoo ko fi nga ko war a teg mën nga loru parce que wax na la nga takk ñeent mais kan moo war a takk ñeent wax na la nga takk ñaar kan moo war a takk ñaar wax na la nga takk ñett kan moo war a takk ñett kan moo war a takk ñeent loolu lu am solo la kan moo war a am ñaar kan moo war a am ñett kan moo war a am ñeent. Mm-hmm. mais sama kalaas gii tey soo ko soo ko nee da may ñeenti jabar ak ñett ak ñeent munu ko yor. kooku day mujjee lor boppam. Mm-hmm. ba pare bëri na fi ñu xam ni tey li ñu war a invertir pour seen doom yi di ñëw ëllëg. Mm-hmm. loolu lépp takkee nañ ko jabar. parce que takkum jabar beneen affaire la. soo amee sa jabar bu baax moom. ah hmm. jàppal. jàppal waaw. soxlawoo beneen. déedéet ñaari jabar sax baax na. parce que kee bu feebaree da ngay dellu célibataire quoi. Hmm. parce que benn jabar moom mi ngi mel ni nga toog ci peggu teen di jayaxu yàgg yàgg si biir teen bi nga jëm. Hmm. benn jabar. wax dëgg yàlla du jabar ah. ah. benn jabar nga am da yow. benn jabar laa yow. mais benn jabar bu meree nga taaxuraani. dëgg bu tukkee. nga am problème. xam nga ñaar baax na mais dama ni Sénégal dama souvent damay gis ñu xam ni. dañuy dajale jabar yu bëri am na ñu xam ne gis naa ko xam ni day takk jabar yu bëri doom yi ba mujj gi bu ñëwee bu fekkee dafa aye si sax. doom yi dañuy tëdd si peron bi moom mu tëdd si biir ak jabar bi. mu ta dajale jabar yu bari loolu jabar wàcc na. wàcc na la wax na wax dëgg yàlla da dangay am jabar. tey contrôler njaboot gi. Mhm. noonu la demee. Mhm. waaw waxee ma ko pour dara. Mhm. wax dëgg yàlla mais ñoom baay moom ah. yaakaar naa ni. ñoom kuñ tax dinañ la yor. waaw tegam arxuraan mi ngi ci ñoom. ak ak ak wërsëg. tamit mun nañ yor jabar. wax dëgg yàlla mun nañ yor lu bëri. wuute na ñoo man mii nga xam ni mooy loolu quoi. xam nga. ah Jumbo ju neex ji. <laughs> wuuteeg ah, daal macha allah seen reej ji yàlla na yàlla na continuer. couple seen sëy bi mel ni sëy Faatumatu ba ak Aliou quoi. amiin waay ndeysaan sëy dafa metti. amiin waay ñu fu ñu toll ñoom ñaar ñoom ñu ngi ree. wax dëgg yàlla mais. seen ree ji yàlla na continuer rek. amiin waay amiin barke Seydina Muhammad parce que booy sëy mhm. euh, dafa metti. Mhm. wax dëgg yàlla waaw dafa metti waaw. yàlla na ci yàlla parce que na ñu bëri bu ñu booy mhm. sëy bu ñu amoon yéene. am na koo xam ne bu la xoolee nii bu sañoon doo am jëkkër. am na ko xam ne bu sañoon doo sëy kenn du la takk am na ko xam ne bu sañoon doo am jabar mm-hmm. yooyu yëpp boo fexee ba yàlla dimbale si nga am ko mm-hmm. ah jàppal mm-hmm. wax dëgg yàlla mais xam nga jigéen léegi borom xaalis yi lañ bëgg il faut am oto bu naay sax ah. gaaruwaale wala ah non gaaruwaale wu ma sax ah, mais dama ne ñu bëri borom xaalis ah, lañ bëgg daal borom xaalis lañ bëgg ñoom ñoom waaw xam nga kalaas jumbóor yi nga xam ne bu dépasse da kaay mu kayaat ñoom waa ñoom ñoom. bu xëyee naan la lijjantil. ay affaire am neexul. <laughs> Ah. waaw Jimbori <laughs> ci actualité bi la ñuy des ba tey euh, ci làmb ji euh, gis nañ ki nga xamante ni mooy Lac de mhm. euh, génn na ginnaaw bi ñu ko tegee woon loxo mhm. génn na génn na nag def benn sortie mhm. di remercier di gërëm ñi nga xamante ni tey ñoom noo nekkoon ci ginnaawam bi mu méttee di ko jàppale mu lim nag ki nga xamante ne mooy Modou Lo dégguñu mu tudd ki nga xam mooy Balla Gaye sit na daal ay turam site na ay turam ni maa ngi gërëm diw ak diw gisuñ dégguñu ko mu gërëm ki nga xam mooy Balla Gueye 2 mhm. te dañuy faral di wax ni euh, su mettee euh, ñi lay fekk si fa ñooy say mbokk mhm. euh, xamuñu nag cause bi lan moo ko waral xamuñu Balla Gaye dem na fa te bëggul wane ni dem na fa xamuñu ba xam ci période bi mu nekkee ci ay jafe-jafe Balla Gaye mi ngi nekk ci période combat mu bari polémique te lépp géejawaay la nee naa la sottu ci ak def si la mhm. waa xam nga tey ma wax la benn affaire Modou mutloo Modou Lo dafay jàng arxuraan bi ba pare di ko pratiquer li ma dégg nit ñi di wax xam nga jàngom arxuraan kese est-ce que xam nga amul solo mun ngay jàng arxuraan fii ba suba te doo ko pratiquer pratiquer ko moo waral mu am mbokkum mbokkum jullitam nawleem mu bokkal métier nekk ci jafe-jafe mu mel ni moom moo nekk ci jafe-jafe parce que Lac bu gërëmee Modou rek Modou am na lu mu ko defal mais xam nga la moo ma jaaxal Lac bi muy dem bi muy dugg prison. ñi mu amoon. ak bi mu génnee prison ñi mu am du benn. nii loolu. noo xam nga Lac de bi muy dem prison. ñun ñëpp gis nañ ñan ñooy ay nitam. bi mu génnee prison daf ko génnaale ak nit yu bees tàq. génnaale na fa Boy Niang. génnaale na fa Modou Lo génnaale na fa Ama Baldé. génnaale na fa xam nga ñooñu pa mooy ñi mu gërëm. Abdoul parce que tey xel xalaatul woon ni Lac de Guiers mii Abdoulaye bi taxaw si côté am mooy régler problème am. am na wala amut. du dëgg. en tout cas lenn moom dinaa la ko xamal. Lac euh, am na lu mu rëccu ci kaso am na lu mu génnaale ci kaso. lu xam ni. après Lac de dina nekk beneen Lac de bu bokkul ak Lac de bi ñu doon wax. Mm-hmm. mais Lac de Guiers géejawaay war nañ ko mën a defal lu ne. Mm-hmm. képp ku nekk géejawaay pour man. Mm-hmm. ameel nga Lac de Guiers 1000 francs lu tax parce que keroog ba leen Eumeu Sène naree jeexal Lac de Guiers a ko freiné. keroog bi leen booy Niang nare nare naree jeexal ba dara desul lu dul indi ay chaise ranger la biir géejawaay Lac de Guiers ko freiné. am naa laa mut loolu loolu donc la dageer defal leen mais ndam la waxal rek saa boo ñëwee bu saa bu mbër ñëwee géejawaay nar leen a jeexal mooy génn freiné ko du dëgg kon bu fekkee dañ ko teg ci cadre sport la de nag wax dëgg yàlla jàmbaar la ba pare la de nit ñi ñu seekal la Lac moo waroon bàyyi xel dara mhm. xam nga lan la waroon bàyyi xel saa buy bëri ñëpp bëgg mu daanu kon kay def erreur waru ko. Mhm. Lac de moo la gën a xam ni Sénégal fii ñu ko bëgg bëriwul. Mhm. parce que buy bëri moom gis nañ estaatub lëm mu leeglee nu mu daanoo la ñuy bëgg parce que day téye mbër ma sax duur ko ba muy bëgg a dee ñu naan Lac de Guiers mhm. dañ naan bëriwul. mais ki nga xam ne nii yow booy bëri ñu bëgg nga daanu est-ce que war ngaa mën a dugg ci yenn yi. seetal affaire bi. kenn du ci mën a wax parce que ku nekk ak sa dessin. Mhm. yàlla moo bindoon ni la daguerre bi il faut mu jaar kaso mais buy jaar kaso nii lay jaaree kaso. Mhm. mais après bi mu génnee kaso nii. vraiment am na lu mu dugal ci boppam lu bokkul ak li mu dugalaatoon ci boppam vraiment. Mhm. waaw nekk na beneen la daguerre moom. wax dëgg yàlla. lu te gërëm na Balla Gaye wala gërëmu kook yooyu. kooku ñun duñ ci wax mais la daguerre ñi mu tudd ñi mu tudd seen tur. ci ñooñu lañ mën a wax ñun. Mhm. parce que tey jii tey jii man mii di taxaw la dageer tudd ma. Mhm. mais munoo jagee la dageer mel ni jimbóori bu ko sori te la dageer xamu ko. Mhm. boo jege parce que ku ku lu gën a jege gën a yay. gën a munuloo jege nit ba pare. yaa ngi dégg. mais xa ah, te te la gërëm mais dañ ko wax parce que bu ndox doon euh, euh, taxa doon xarit. kon ndox du togg jën. tey sa waay démb aussi mun na doon sonoon tay mhm. du dëgg mhm. la mu gis daal ba wax ko ba bàyyi ñoo ñu tuddul seen tur mhm. am xëy na moom moo ko xamal boppam mais tudd na saakees tudd ñooñu saakees moom booyam la musa doon parce que la dageer sax boo musaana bëgg bër mu bëreeg yow sooy daanee saakees mu bëreeg yow ndeysaan moom xaw ma nit ñi seetlu nañ lool xaw ma seetluñ képp ku mës a daan saa la dageer tàllal na la loxo bëreeg yow booyam la gërëm na ko fu nekk. Mhm. mais euh, diggante la de ak. Euh, Balla mhm. kooku moom wax la nii rek mais ñooñu moom dañuy ànd par force. Mhm. parce que pot lu taxalewul mbaam ak noppam. taxale leen du yomb. mais Modou moo nekk ko xam ni wax dëgg yàlla. ni ma déggee ci nit ñi Modou ku baax la. Modou wax dëgg yàlla ku baax la. parce que bu jaralee la daguère mu tëdd ba guddi nee na di naafile di ko mm-hmm. ñaanal. Mm-hmm. moo Gris Bordeaux. Mm-hmm. loolu moo leen war parce que Modou Lo dafa am lu ñu déclaré woon. ñu dem ba ci biir mu déclaré ñu oustaz. kon il faut mu doxal cëru oustaz. ba pare bu dul dara bu dee mooy roi des arènes kay en tant que buur bi lu laal sa njaboot yaa war a jóg. dëgg la. Modou dafa war a jóg ah. war na jóg. parce lu laal njabootam. war na jóg wax dëgg yàlla mais communication bi Lac de def. di ko gërëm di gërëmaat. ba pare rakku rakku Lac de Guiers génn nee na Modou Lo defu ci dong yam ci da cee def defati defaat. Mhm. Mhm. en tout cas li Modou Lo def ah am na ci ñu mu gën a jekk mais est-ce que xam nga Fatou Mbaye mhm. léeg nit di la romb nit jege la lool ndekete kële di la romb sa xarit la. parce que gisoo nit saa bu nekkee ci jafe-jafe. ki nga ko dul yaakaare chaque jour moo koy faj. Mhm. mais ki ngay yaakaare chaque jour. da ngay gis ni du faj sa soxla. Mhm. loolu daf ma jaaxal. Mhm. mais daal yàlla na leen yàlla defal jàmm. wax dëgg yàlla. waaw gileelu si na. na am combat bëre. li ñu yàlla na ko yàlla musalaat ci kaso. ci barke yonent bi yàlla bu mu fa xamati yàlla bu mu fa jaarati ñi nekk kaso aussi yàlla na leen yàlla jàppale ñoom tamit ñu génn ba pare Fatou mbay kaso bi dafa fees kaso war nañ ko lijjantiwaat nguur gi jàppale ñu pour ñi nekk ci kaso bi mu wàññeeku te Fatou bu ñu bëggee ñi nekk ci kaso yi wàññeeku est-ce que xam nga nan la ñuy def nan la ñuy def xoola dañ ne woon képp ku tux yàmbaa nañ la jàpp tëj kaso mm-hmm. xam nga lu taxoon ñu ne ku tux yàmbaa ñu tëj la kaso xam pour dañ ne buñ ci tëjee ñett nit ñeent ñeneen yi dinañ bàyyi. Mhm. mais bi ñu indee yëfu yàmbaa ba tey tëj bi daa gën a bëri. Mhm. mais Fatou est-ce que duñu bàyyi ñi nga xam ne dañuy tux yàmbaa kuñ ci fekkateeg yàmbaa alamaan la ci sa xaalis. Mhm. yenn sàcc yi tamit ñu alamaan la ci sa xaalis. ku def violence dóor sa moroom. ñu alamaan la ci xaalis. buñ ko defoon kaso bi day wàññeeku mais ku dóor nit ñu jàpp tëj. ku tux yàmbaa. ñu jàpp tëj ku jël ginaar ñu jàpp tëj moo tax kaso bi fees dal ginaar benn ginaar nañ la jàpp teg la benn ruq ne la temps ngay fay doog fee jóge mhm. fay loola mhm. gis nga bu ñu leen doon laaloo ci seen alal mhm. wallaahi kaso bi day wàññeeku mais ku ñu jot yóbbu ku ñu jot yóbbu dañoo yóbboo yóbboo yóbbu ba genn wàllu Sénégal gépp a ngi ci kaso bi nañ xool ni ñuy def arrangé waa kaso ñu génn yow tamit. Mm-hmm, mm-hmm. lii mooy affaire bi. Mm-hmm. xam nga la de bi bu fekkoon maa yor justice. mu yor ca visa yooyu naan day yóbbuwaate visa. man ma jàppoon ko di justice. Lac de dama koy engagé quatre combats yoo xam ne du laal dërëm. fay nit ñi fay nit ñi ba pare duma ko jox affaire sëriñ mu bëri lépp. beneen yoon di mbër mu ci xool. <laughs> dootoo jël visa mel ni ambassadeur. non na <laughs> waay waay mais ah, caat bu yaraax nan nga gisee caat bu yaraax. ah caat bu yaraax ñëw na euh, li li li mbër musul def. Ah. li ñu musul gis mbër buy ñëw ci arène war a bëre. Ah. ñëw sol sa tubéy euh, solu normal ñëw dugg ci stade bi. waa xam nga Fatou Mbaye. Uh-huh. làmb day gën a yàqu nii sax. Hmm? waaw. lu tax. xam nga làmb lu tax muy gën a yàqu ñii. Mm-hmm. làmb est xam nga waa làmb dafa am. Euh, lu nekk ci làmb te waa làmb comprendre wuñ ko. Mm-hmm. làmb dafa toll fu xam ne kenn ku si nekk li nga ci am da koo jël te sa moroom yëgu ko. Mm-hmm. Assane mën nga ma indi indi image bi mos euh, kii caat bu yaraax. léegi lii lii lii lii problème bi. Mm-hmm. mooy ñi jiite làmb musuñu bëre xamuñu làmb. ñi ñu jiite danoo xam làmb. xoola làmb bi nga xamee làmb ba tey. ñu jiite làmb ak ñiy làmb chaque jour ñu xuloo dëgg la yaa ma dagg dagguloo ma yaa mm. jël sama xaal jëloo ko foo ko dugal. Mm. werante bi mel ni jox ko ndaal yi jox la jox ko ndab li. Mm-hmm. léegi man munuma comprendre làmb ñu jël Mouhamed Ndao Tyson di dund. Mm-hmm. Manga Dee di dund. Mm-hmm. Yékini di dund. Bombardier di dund Moustapha Gueye di dund ñu jël làmb jox ko keneen ku musut bëre. làmb day gën a co am coow rek. léegi caat bu yaraax su demee ba solu yére. ñëw ba si digg làmb ji si meeku di bëre mais kan moo ko def. ku ko def. CNG. Mhm. lu tax. non dafa am dafa dafa am benn comportement boo xam ne bu ñu ko comporté woo bu ko CNG comporté woo. Mhm. mbër bu ñëw di nga bëre. Mhm. ba pare mbër yi Gris Bordeaux bi leen jiite. tamit moo war a bàyyi xel dara. gis nga WWR. bi nekk Amérique. ñoom benn affaire la bu ñu créé ñoom. ñoom ñii carte yëpp ci ci ci ci ci kii boobu lañ nekk ci télé boobu lañ mm-hmm. nekk ñoom ñooy engagé seen combat bopp mm-hmm. ñoom ñoo yor seen télé bopp mm-hmm. ñoom ñoo yor seen sponsor bopp mais mbëri yi mënuñu ko ci seen bopp lu tax moo dajale woon ñaari mbër rek tem ñu xuloo ñoom waroon nañoo arrangé seen bopp am seen télé bopp ku ñëw comme tey ji ñu arrangé woon ñoom ñëpp bokk benn affaire léegi bu ñu bokkee benn affaire. Mhm. bokk benn euh, euh, groupe. Mhm. wala ñu euh, am seen benn promoteur boo xam ne dafa ubbi dara ñoom ñoom nekk ci groupe bi. Mhm. ñu ubbi ko def ko genre entreprise. ku soxla sponsor bu soxla ñu jàllale la. da ngay ñëw si Gris Bordeaux wax ko ko. Gris Bordeaux ne la programme nañ combat diw ak diw ñoom ñooy defar seen combat bopp. léegi ima kiy jël image ku ñëw da ngay fay. ñu jox la image bi sponsor bi day fay. léegi xoola ñoom jëri dinañ ci fayeeku ba mbër mii doo ko commencé dina fayeeku te bu yàggee école mbër mën nañ ko ci ubbi mais ñoom niñ doon demee démb ak bërki démb noonu la ñuy demee ba tey ba pare làmb wutukaayu tur lañ leen def ku soxla tur da ngay ñëw ci làmb boo amee tur sànni waa làmb di leen xas du noonu sànni waa làmb di leen xas léegi ñoom waa mbëri ñoo war a muus ba pare tamit lu tax rëg-rëg Ama Baldé Boy Niang Sa Thiès xam nga mbër yooyu noonu nekk ci suuf alin Seye 2 Coins ñooñu noonu lan moo tax boobu ba léegi ñooñu mënuñoo dem ci kaw ñi ne ci kaw nekk ci kaw rek di bëre te imaginel bu ñu jëloon xale yi jaxase leen nag mag ñi mag ñi léegi ñu am problème mais ñaari mag yu daje nga naan kii indi na dooleeg indi na forme moroomam la bu indiwul doole lu muy indi leneen noo gisee caat bu yara no caat bu yaraax mbër kaamil la. ni mu soloo ñëw wa nu mu soloo ñëw. xam nga mbër lool du sarmu mbër. Mm. mais tey dafa ne woon du bëre combat bi te joxuñu ko nangam. Mm-hmm. gars yi forcé ko bëriloo ko. Mm-hmm. ni mu liñ ko def moo neexul muy wan sénégalais yi ne. Mm-hmm. liñ ma def neexuma te sañumaa bañ. loolu la leen wan. kon d'accord nga comportement non déedéet moom moom waxuma comportement bi de. moom liñ ko def. moom la ñu wan ne neexu ko. te bu bëriwul ñu aj ko. Hmm. muy bañ ñu aj ko mu ñëw bëree nii. Hmm. mais déguisement bi sénégalais yi la wan ni dañ maa jaay doole kaay leen jàppale ma bi mu paree lan la sénégalais yi def. Hmm. bi combat bi jeexee lan la sénégalais yi def. ñëpp ko doon tàcc. lu tax combat bi jeex ñu koy tàcc. bu naqari woon sénégalais yi est-ce que duñ ko yuuxoo. parce que li mu def mbër mi ngi koy doog a def mais keroog li sénégalais yi def tamit sénégalais yi ñu ngi ko doon doog a def. mooy mbër bu ñëwee noonu ba pare pare stade bi di la tàccu c'est que Doudou Sané moo warul woon nangu caat bu yaraax dugal ko ci ci piège bi caat bu yaraax da koo piège ba pare duudu Sané ñëw dugg ci piège bi dégg naa Eumeu Sène sax après mu ciy wax Eumeu Sène euh, euh, euh, kii Doudou Sané mun nañ ko boole ak Franc Eumeu Sène Franc moom la soxla bu fekkee day bëreeg moom mu bëreeg moom bu bëreewul ak moom mu bàyyi franc rek. Mhm. moo gën quoi. bañ ko boole di ko utal ay adversaire <laughs> waxal rek ah nit ki loolu mooy affaire bi <laughs> ah oui. caat sax euh, mhm. franc sax génn na ne ko. Mhm. man yow laa soxla. ñëwoo ba ma. mais bul ma wutal ku may bëre. mais xam naa ni moom ëmma seen franc ku ko tëgg dana neex. wax dëgg yàlla ah. ah ëmma seen franc. non combat la bu neex. wax dëgg yàlla. Alioune Seye 2 tamit. mbër yi dañ ko war a jël. ku ko jëlu da nga koo ragal. wax dëgg yàlla. fekk Alioune Seye dama wax ak moom mu dëgër bopp. Alioune dóor yi muy dóor nit ñi muy daanu. du am combat. ko waaye dañuy ragal. ah Alioune day dóore. bëreetul da lay dóor nga daanu. te bu lay dóor dégg naa da ngay ànd ak miir. ah. <laughs> ah man naa for naa si wewu bëy ñu ne ma alin Seye dafa jël benn balle de dugal ko ci biir loxo feer la feer <laughs> ay feer lay dóore keroog gis naa ko ci làmb ji banaa amee yow dafa lay dóor ko ku ku nga waaj Alioune ci <laughs> mbër yi <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm yow Fatou Mbaye mm. nit ku baax nga yàlla na yàlla jàppale la barke Seydouna Muhammad quoi mm. et puis sénégalais yi nañ la jàppale mm. gis naa aar bi ngay def euh, na nga si góorgóorlu bu baax waaw waaw Seydou Jojo Jojo. Jojo sama waay la nit ku baax la mhm. ak saa neex. Mhm. parce que léeg-léeg bi ma nekkee Feeling ndakaar léeg dañuy ah. defal nit émission ba pare. Mhm. ne ko am na suñu mbokk mu nekk Feeling ndakaar boo demaatee fi moom tamit day gën a baax su leen neexoon duñ ko def. dëgg saa neex tamit man joué naa ak moom neex moo ma njëkk moom ma dugal ci théâtre man. waa ok non saa ah. neex. saa neex gis nga saa neex ak ah. Jojo. ñooñu il faut boo leen boo leen jegewul. Mm-hmm. doo xam ñoom ñooy kan. Mm-hmm. su grand zoo. Mm-hmm. gis nga grand zoo euh, kii tay jii. aar aar aar nii suñ koy wër. Euh, di xool aar. si Mansour Mba Diaga ngay xool. te Zora. waaw parce que xam nga dafa Zora dafa fekk ay génération yoo xam ni ñun fekkee wuñ ko. ñun da génération biñ fekkee. zoo dafa ànd ak ñun. ànd ak génération boo xam ne ñun ci ci ñoom lañ ñooñu moo si mm-hmm. parce que su ma gisee zoo muy g mm-hmm. daf may fàttali ma xur a jëgay fàttali ma ñoom euh, ñoom daaray kocc bu njëkk baak yooyu mm-hmm. fat da moom daal mooy théâtre actuellement nii waa dëgg yàlla ah. waaw wax dëgg yàlla man moo tax bu ma gisee ñoom saaneex ba pare ñoom saaneex dañoo boole lu garaaw indi ko parce que dañoo indi Zora dem indi Mandione tegaat ko léegi daaray kocc su su zora ngay xool sa xel di dem ci daaray kocc moo représenté kullu daaray kocc donte daaray kocc géwatul mais euh, Jojo ak Sanekh ñu baax lañu nit yu baax lañu vraiment parce que jege ñu leen jege wax nañ ko ba pare wax boobu ñu daan wax nit ñi pour ñu ñëw Feeling Dakar fekk si ma fa loolu dama ko daan dégg sama nopp dégg naa ko xam nga ñu baax lañ daal yàlla na leen yàlla fay yow tamit nañ la mm. jàppale mm. mais yow tamit na nga xam ne mm. aar du biir day xëy wasin mm-hmm. ba pare aar fekk toroxalu la du la teral mm-hmm. soo weddee dama laaj saa neex lu ci mm-hmm. daj ba pare coon sekk dafa daan way way bu rëy boo xam ne nit ñi bàyyiwuñ si xel dafa ne diwa ngi nee di dem boo gis nee ko ma sa coona lam daj du la ko wax ngay dox nii rek nit nit ñi xàmme la di la woo laajal kooku ba pare siiw dafa metti léegi-léegi da ngay siiw nekk ci ay conditions yoo xam ne baaxul. Mm-hmm. te doo mun a génn pour wax ko nit ñi. Mm-hmm. dëgg te nit yéen sax tane ngeen da ngeen joué ñu leen fay mais ñun dañ daan joué cassette ba pare. Mm-hmm. yeewu suba teel du ñu am lu ñu ndekkee. billaahi. nga gis ko gàtt xel ba mel ni patt ñëw naan la cassette bi neex na doo ma ci may. amoon na. macha allah nag nit ñi ñu ngi siy mais gën leen defaru rek te ngeen topp ñooñu ngeen xool leen quoi mm-hmm. mm-hmm. yal na la yàlla defal jàmm mm-hmm. ak jeu bi nga jeu ten bi nga indi aussi si théâtre dafa jafe parce que xale yëpp xolleeku nañ waaw sa teint quoi parce que xam nga sa teint bi boo ko bàyyee dina tax sa sa dund gën a neex mm. parce que boo xasoon a dugg si xeesal loo naray lekkee yàpp diwoo yàlla ngam ñaareel buy xeesal diwoo ko diwoo ko yàlla am ñaareel bu koy diwoo ma ne loo nar a lekk ak bëri na xeesalkat yoo xam ne dañuy li ñuy diwoo lekk ñu ko de parce que di diwoo lu seer te doo doo lekk yàpp sa yaram mel ni ñuuxatu mburu xam nga jaaduwul wax dëgg yàlla ñii xeesal ak ñii jamb xeesal yëpp dañ leen war a teg na lee dégg nga tooñ waaw jàmb boo xam ne dara baaxu si tàggatoon non gërëm naa la yàlla na la yàlla defal jàmm mm-hmm. di gërëm daaru moxti Euh, daaru moxti business. Mhm. bi ma solal verre yi maa ngi leen di gërëm quoi gërëm ñëpp. Mhm. képp ku nga xam ni yaa ngi may béggee tamit. Mhm. maa ngi lay gërëm. di baalu àq ñëpp daal. Mhm. waaw waaw. ama internetu sans limite TV euh, actualité people euh, seen doom seen xarit Fatou Mbaye nee naa la du ma ci wet benn yoon dama ci ànd ak sama frère euh, sama xarit ki di gërëm di ki nga xam moo nekk ci régie bi muy Assane macha sa liggéey mucc na tubaar fakal la sama frère maa ngi lay ñaanal mën-mën gi gën a yokk ak kàttan bi yàlla bàyyi la fi macha allah mën nga li ngay def lool lool di leen jaajëfal di leen jox dig daje samedi incha allah maak sama frère Jimbori ci actualité bi ak people bi sans limite TV nee naa leen fii la lépp di xewee may Babacar euh, sama sœur du ma la fàtte benn yoon nee naa la bu teint bi bellee euh, tubaar la yow la yaa fi jaar euh, say say gaam ci man kenn du yow sama xarit sama sœur jaajëf